ñu seet ci reporter yi tant de structures yi ñu ci war a accrédité au niveau des techniciens tant de structures yi nga xam ne war nañ leen mën a accrédité ñu discuter ci emplacement bi ak installation yi ba doo leen ma jéppi duma leen jéppi man loolu mooy objectifu daje bi te it nous assez matures ki dem ba jël ay millions wala des centaines de mille jënd appareil bi jaral ko bàyyi këram suba ba ngoon di wër mais c'est parce que vous êtes armé de courage d'ingéniosité d'engagement et de volonté pour réussir mais est-ce que cela veut dire que réussir aussi vos objectifs c'est déranger non donc président dama lay gërëm di la sant ci ndaje mi parce que bi ñu ko waxtaanee rafetlu nga ko trop nga tàllal ma loxo ma tàllal la loxo moo waral ndaje bi kon léegi affaire bi neex na li may ñaan mooy président buur man awma lu ma leen di xañ comme ni nga ko waxee à l'entame de vos propos man Sénégal moo ma ñor gis nga réew mi c'est pas pour le plaisir de vos beaux yeux mois je n'ai plus rien à amatuma lu may euh, nan laa ko mën a waxee loo xam ni mën naa ko prouver ci réew mi déedéet du ci sport du ci agriculture du ci jeunesse du ci développement lii benn pàcc la ci suma life xëy na yàlla moo ñu nattu ci lii mais li ma bëggu rek mooy dañuy dem ci bis boo xam ni du bis bu yomb bisu téll téll la bisu rajax-rajax la te it dama bëgg ñu rafetal nekkin wi tey mënoon naa ni dama ci ànd ak ITV ak 2 tv rek yam ci je suis assez outillé pour faire communication muy ci mbër yi di ci sama ay relation yi ci réseau yi mais dama leen a fekk ci biir ngeen ci mbir mbir mi ngeen di sama ay doomi ndey ñii fekk ma ci biir mbir mi ñu ànd di bokkandoo bis yu samedi dimaas ak lépp lu mën a xew kon il faut que ñu bokk mais nañ leen ko rafetal d'une manière responsable je pense que la balle est dans votre camp maintenant mooy président je suis open à une proposition au niveau des accréditations bien que c'est pas le premier point nga ni ma El Hadji Pape Abdou je propose que ci reporter lamb yi ñu accrédité temps techniciens yi ñu accrédité temps ñu waxtaan ci maag yow ba juboo et vous verserez le contenu de nos conclusions à vos membres que personne ne m'appelle individuellement donc je reviens sur mes propos que personne ne m'appelle individuellement pour me parler d'accréditation. J'espère que ça, est la première décision prise. Le seul interlocuteur que j'aurai en marge de cet événement qui sera organisé le 5 décembre 2021, Inch'Allah Rabbi, le seul interlocuteur que j'aurai avec sur les réseaux sociaux, sociaux site web nangam nangam ak yooyu buur géwal mooy suma interlocuteur je pèse bien mes mots sur les réseaux internet c'est buur géwal la ma seq ak ñeneen ñi nga xam ni nag mooy presse écrite di presse bi nga xam ni ñoom laa signeel sama ay événement muy ITV ak 2STV loolu suma diggante ak moom la defe naa ni boobu leer na président et j'espère que vous validez ma proposition kon gars yi déggoon nañ ko alhamdulilahi rabbil alamin leneen li may ñaan mooy que ni président ba samedi bii ci mujj je vous prends à témoin yéen ñëpp y a de yi nga xam ni bu ñu amee jafe-jafe ci làmb comportement yooyu moo ko waral bi ma Sène dugg see ci làmb ji nan la gaa yi def président ah non da ngay wax ci kaw président njaboot gi la daw topp ko te chaque jour ñu ñu jooy ci loolu mooy benn mbër deux cent deux cent médias voilà ça crée une désorganisation ça crée de l'insécurité alors président loolu aussi dañu ciy xaar nga jouer ci benn rôle sensibilisation ñu respecter consignes yi nga xam ni téye nañu ko fa arrêté nañu ko fa mais boo xoolee Eumeu dafa dugg si rek lu waay doon def ba nga ko di dàq mel ni kuy dàq lapin alors je pense que yooyu ay ala yàlla ci suñu ay collaboration nañ leen rafetal nekkin wi moo ñuy gën a jox personnalité gis nga li nga xam ni moo lay dundal muy affaire bi nu mu tudd caméra bi di téléphone bi ngay filmer nangam ak nangam boo demee ba toog teg ko toog ci say njaboot nga toog xam ni lii moo doon mooy sa arme pour que nga mën a am indi loo indi sa kër da ngay xool lii ni nga ci nekkee nan la ak naka la Est-ce que vous me comprenez Nous ne pas en classe ni en amphithéâtre pour se donner des leçons. Non. C'est à partir des, constants, euh, des, des constats que ci la ñuy évoquer sujet bi yéen ñëpp ñooy nekkandoo chaque samedi chaque dimanche ak yeneen événement bu amee mais nañ leen xoolaat mbir mi honorez votre président parce que bu mettee moom ngeen di yónni ci ñun moom la ñuy gis parce que ne peut pas, pas à tout le monde c'est pas possible on ne peut pas discuter avec tout le monde c'est pas possible yéen a toog ba mûrir ni vous devrez quand même agir en groupement ou bien en association kon dafay jaadu ñi ngeen jiital ngeen honoré leen nan ngeen leen di honoré seet liy yàq ak liy ternir image par vos biais de vos actions ngeen moytu ko loolu laa gis te du man rek maa ko gis nañu leen rafetal nekkin wi rafetal ànd bi parce que nekkin bu ñaawee rek ànd day ñaaw maag yow bu ñu bokkee bool bi nii tey jii nii war a lekk laax nga jekki-jekki comme li ñu ko doon defee jamono sëlëm kenn walla xam nga def yenn affaires yi mais suba bu ñu pour ñu mën a toogaat day jafe grosso modo loolu mooy équation wu waa làmb man nag promoteur laa di président wu promoteur yi fàll mu ngi ñëw yëkki mbay yëkki ni mu ngi nii bisu travail la leen di dafa metti pour wan leen rek cër bi ma leen jox bis bi seen président bi ko jàpp bis bi ak waxtu bi kii moo ko jàpp dama ko ne seetal bis bu la arrangé nga wax ma ma convoqué ci man danaa wut hôtel boo xam ni di nga fa dugg di nga ne ci jàmm doo ñàkk dara du la sonal nga toog ñu waxtaan waaye nag lañ fay jëlee na doon tënku gor je vous aime bien ça veut pas dire que je vous laisse tout dañu fas yéene ànd ci benn événement nañ leen ci ànd ànd bu set incha allahu rabbi loolu daf may dugal ci organisation làmb bi làmb bi dañuy jël polis dañuy jël gendarmerie bien que mosu fa am parce que boo leen seetloo ba ba ci làmb Fallou njaay bu mujj bi euh, porté nañu préjudice ñi nga xam ni sax ñëwuñu ci làmb ba EDK ba ba biir ba arène national oto mënta circuler ci rek suñu ay bëgg bopp bëgg-bëggu bopp ak suñu ay comportement bopp dafa naa ni Babacar bii sax fekk na ma ci embouteillage bi mais président affaire bi métti na de ma ne ko ah xam nga ñun li ñu yor moom yàllaa ñu nattu ñii ñu ngi nuy gërëm mais ñii ñu ngi nuy ñaan yàlla parce que li mu indi moo bari waxuma la nag fu Siteu war a jóge dem làmb waxatuma la ci dara mu ni la damay dox dem làmb ja doxu Siteu caaro yi jëm Pikine ah, loolu àdduna bu tukki la alors dafay jaadu ñun ñu waxtaan ci suñu biir xool quelle est la conduite à tenir neex na trop maa am buzz maa yor noo leen ko tudde sax euh, affaire bi bi ngay njëkk a jot am na leen ko tuddee maa yor scope bi scope bi maa ko yor nangam na mais d'accord mais na rafet mais si tëne kii këf téléphone bi fàtte lañu ñu waxtaane woon ci hôtel Colonia ba du wàllu gorde président dana danañu ànd ci arène bi bis bi may def sama visite de sécurité damay ànd ak yow on fera des délimitations pour toutes les structures man nag damay dem ci làmb boo xam ne yombul ci man damay jël sama matuwaay yépp duma seet lu neex ma sàmba lu neex ma paate reetaan beeg caaxaan bi yépp fii la yam de dama leen di wax lu leer danaa ànd ak moom ba ñu définir ne président fii la gaa yi war a toog fii la ñu war a defar ba nga ni ma gongo ma ni la lan la laaj nga ni ma lii lay laaj ma jël ko defar ko teg ko ci sa loxo leneen lu ci beneen reporter dugg ça ne m'engage nullement ni de près ni de loin j'espère que loolu mën nañ ko valider salaamaaleykum <coughs> euh, bu ñu demee ci programme lutteurs yi incha allah fii ak euh, semaine bi di jeex dinaa def une coordination j'ai même les éléments mais il faut que ñu make sure ba lu ñuy wax du am benn mbir boo xam ne dina ko déplacer tuuti danañ leen wax ngeen dem jëli Papa Sow danaa ko wax mu ubbil leen buntam ah, entrainement parce que nag mënul di wuyu euh, reporter bu nekk c'est pas possible je vais organiser benn rencontre spéciale boo xam ni dana leen recevoir ngeen daje ak moom waxtaan ak moom bu leen neexee sax ñu yokk ci boo leen bëggee yendu ak moom affaire bi rafet danañ ko organiser ak Siteu incha allahu rabbi ngeen nekk ak moom bu ñëwee ngeen def li ngeen war a def affaire bi rafet am na benn dernier face à face boo xam ni danañ ko def ak ñoom aussi bu ñu paree ci loolu li koy tëj triplex lay doon ak ITV 2S Papa Sow day toog këram Siteu toog këram man ma dem ci benn bërëb maag parrain bi wala ak sama ay nit ah, ñu waxtaan ak àdduna loolu mooy ñett ñetti programme yi nga xam ni moom la ñu fas yéene déroulé man sax dama jëloon décision pour wax leen dëgg rek dootuma dajaliti si tàgg Papa Sow coow li doy na sonn naa ci. doy na sëkk man kañ fu mu nii li ñu waxoon rek en route vers le 5 rek. Euh, gënuma leen xam ci réew mi ngeen dëkk dañuy dem ci làmb boo xam ni metti na metti goo xam ni yéen boo leen tëddee yéen a ngi nelaw miñ man nelawatuma da ngeen wax baax moo ñu taxa fas yéene jël. lu mu dee dee trois cent policiers trois cent gendarmes police ci biir gendarme yi ci biti ak fas yi parce que boo leen xoolee pour tour stade bi ak bunt yi niñ ciy duggee parfois coonoy lamb yépp ci entrée yi la ci ñi mënta dugg buur jël otoom yàpp ci ñetti nit ni day dugg buñ dikkee ñu war a contrôler ñooñu ana seen passe buur laa àndal maa koy téel ordinateur bi maa yor jaag bi war a def direct bi yooyu yëpp gaynde nañ leen ko bàyyi teg suuf ngeen yombal seen bopp liggéey bi mu yomb parce que man Alaaji Abdou wax naa ko bërki démb benn président bu newoon ci làmb ji mu ñëw mu ni ma policiers yi nangam ak nangam ma ni ko promoteur bi bu xasee ba fay pa fay alkaat yi la commissaire ba di désidé ak ay nitam man awma ci droit wax ci kon nañ leen yombalante liggéey bi nañu leen bàyyi bàyyi aussi di paasante badge yi am na ci waa presse bi ñoo xam ne danga leen di jox badge yi ba pare ñu wëlbatiku jëlaat badge yi dem ci grillage yi joxe ko wala yóbbante ko nit mu jox ko Cheikh Ndiaye ma la Cheikh Ndiaye ñëw dugg ci ñëw toog fekk ñun xam nañ lépp dafa fekk ni as gor kenn du ko toroxal waaye nag ci kaw mu gore bu dee dégg ngeen wolof nit mooy sagal boppam nit mooy suturaal boppam mais nga ñëw ne dañ lay jox accréditation ñu jël jox sa président accréditation ñu jox la sa bos nga dem jël ak sa xarit ak yépp parce que seen benn waaye dóor na leen benn kóol nangam ak nangam am kenn koo leen yónni jox ko ko kooku dem sol ko daal di ñëw amul njëriñ c'est du vol tubaab a ko tudde vol wolof di ko tudde sàcc la waaw bu demee nag ci contexte bi ñu liggéey gore di la ak mbaadoo la ak ñàkk kóllëre donc ñu moytu yu sew yooyu sécurité intérieure bi xaadim njaay mii ku ko xam-xam ni ji alaaji am Abdou Fall benn kii dama leen di wax sama diggante ak moom du làmb kii yaayam mu ngi ci kër dëgg maa ngi fii ci àdduna moo ma ko dénkoon avant muy làqu ak mon nami mon frère Pape Mayel Diop ñoo tax kii ma jàpp ko lu ma am danaa ko bokk ak moom lu mu am danaa ko bokk ak moom fu mu xewle dina ma gis ci wetam fu ma xewle it fu mu nekk danaa ko woo mu ñëw taxaw sama wet yàlla nag da koo dimbali mu nekk làmb di liggéey digganteem ak askan wi rafet ba mu am ci nit ñu baax tey mu créer société de sécurité am ñu jox ko aéroport mu yor ay business yu bari moom laa fas yéene jël ci sécurité bi nga xam ni mooy sécurité locale bi incha allahu rabbi nit ku dëggul taalibey xaadim rasul bi bu ñu jàllee ci loolu làmb bi buur wax nga fi lu am solo muy problème mu pay-per-view pay view loo xam ni lu ñu dab la ci làmb daf nu dab force et de reconnaître que dab nañu ñu ngi ciy liggéey mais du parti yépp a ko maîtriser euh, am na lu ci xew évoqué nga ko yàlla xam na ni tey laa koy door a yëg man du ma fenal mbindeef buy dox ci suuf parce que kenn yorul suma dépense <coughs> a ah, wax nga incha allahu rabbi ñi ñu ko seqal danañu toog ak ñoom waxtaan ba loolu nga xam ni mooy seen préoccupation ñu waxtaane ko mu dañ loolu man El Hadj Abdou bu ma la nee xaw ma làmb keneen mais sama làmb saafaraw sama làmb mënuma leen ni doo leen def direct làmb gi jeex mais man awma droit bloquer seen instrument de travail jusqu'à minuit pourquoi et sur quelle base defuma clause boobu yàlla xam na ni ak Cheikh na Cheikh Saad bu léegi laay door dégg seen problème bi man xam nga dama jege naa làmb sori naa ko jege naa ko sori naa ko mooy maa ngi ci làmb mais dama ne ci yeneen i activité lii nii maa ngi koy door a yëg nii Cheikh na Cheikh Saad bu nag laa lay waxal ki ma ko seqal danaa ci waxtaan ak moom ba du loru te doo leen loru loolu defe naa ni bu ma leen ko waxee war na leen mën a doy